ah xam nga euh, réaction bi ma ci am rek mooy am lu ma métti lool ndaxte ñun bu ñu nekkee ay ndaw ne ci politique ñu wóolu ñu dénku ñu dañoo war a tàmm di wax dëgg ndaxte euh, politique euh, ñi naan jëmul ci yàlla man gëwma loolu ndaxte yàlla dafa teg nit ñi ci àdduna ku ne mu am lu mu la dénk nga war koo doxal maire Barthélémy Dias gis ngeen ko semaine yii génn li mu njëkkee mooy maire Mermoz fa ñu fa société bi ñuy wax nangam am projet ci commune commune am la ñëw Euh, attaquer construction ou jàmbur nangam nangam man lolou du ci wax ndaxte du du fofu autorisation de construire du ministère moo koy joxe confusion dem ci commune u euleuk mu ñëw ne waaw waaw dédé du sama commune benen commune la ñu éki jékki-jékki mu ne waaw euh, APR seen siège bi tabax amul autorisation de construire ñu won ko ne amna autorisation de construire dañ ko bind te moom tontuwul loolu moo tax article 207 limu wax mooy buñ la bindé 28 jours tontu woo tontu bi nga wara tontu. Euh, joxé wo benn motivation lutax tax tontu woo ki nga xamante mom moy tabax tabax amna droit tabax té loolu sax amna décret bu yone né légui sous préfet amna droit tabax bu féké maire bi tontuwul. ñu dàq ko ci loolu mu ne léegi wéy APR fayul donc koku ci combat politique la nekk nekkul ci combat wu likay woné moy mom ci jëmi bopam joxe na ay autorisation ci littoral bi bu fekkee joxe na ay autorisation de construire ci littoral bu fekkee mom amna na ngëm-ngëm ne littoral bi kenn waru ko kenn waru ko tabax lutax tax muy joxe autorisation démb seetaan naa ko ci benn télé mu ne waaw parce que cour suprême moo ne ku am titre dañ ko wara jox mais mom depuis kagn la ragal cour suprême ak prison donc dafa wara nek nit ku dëggu di def lo xamantene yon ndax loolu lañuy ñuy xaar ci homme politique leneen li nak moy euh mamel tuddu ngeen ko Mamel di zone bu sensible di site historique bo xamantane ne waru fa tabax nit ñangi jog le régime président Macky Sall euh, Mamel bi niñ ko def Mamel régime président Macky Sall deful dara limu def moy dak ña fay tabax ndax tabax dañ leen jox ay titre ay yo xamne ci année 2000 lañ leen ko jox fa ñuy wax ci Mermoz wala ci Point E te doon ko wax baay bi 2003 lañ ko signé bobu Macky Sall moy président autorisation de construire ñan signé signé ay maire lañ Fan Point Amitié kan maire opposition la nek Mermoz kan mooy maire de du Barthélémy Diaz ville de Dakar te du kan moo signé euh, euh, autorisation de construire projet biñu wax Wami bi nga xamante mo nek sur le sur le bas des Mamelles ville de Dakar donc ngëm-ngëm bobu ñu wax ci littoral bu féké deug la ñom nañu bañ bañ signé benn autorisation léegi nak man sama rôle nekku fi nan, di wa def wala di wa def ñun ñëpp ay sénégalais lañ li ñu war mooy defar littoralu Sénégal juróom ñaari témèr ak juróom benn fukk la ci ay kilomètres du Dakar kessé, du du corniche ouest kessé, du corniche est kessé. Amna ño ñoo bala indépendance au Sénégal tàmbali nañ di dëkk ci booru géej ñoo xamante ne mën na am seen aada loolu la boo demee fu mel ni Lompul boo demee Wakaam boo demee Ngor boo demee Yof ak yeneen ak yeneen waaye mu amaat leneen tamit loo xamante ne dafa am mooy am na projet yoo xamante ne njëriñu Sénégal hôtel yi ñu fiy def Sénégal dafa yaakaar ci tourisme te tourisme boo demee sàlli nit ñi ci booru géej gi lañ nekk corniche bi am na loo ko war a waajal ngir nit ñi mën ci liggéey mais tamit dañ ci war a waajal ngir ñi nga xamante ne tamit mënuñoo dem étal mënuñoo dem fenn ñu jox ci géej gi di fa mën a football di fa mën a napp di fa mën a def lañ fa war a def loolu nag président de la république am na ci yéene ndaxte moom mooy chef de l'état bi nga xam ne moo njëkk wàccal ci boppam sur le terrain dem visiter zone yooyu Euh, joxe fa ay ndigal fekk sax ay état yoo xam ne xaritu Sénégal lañ yoo xam ne dañ leen joxoon ay boomu nangu ko ne leen fii kenn du ko tabax donc moom jaanam wàcc ne li war léegi mooy ñun ñu waxtaan def liggéey bi nga xam ne moom la ñu war a def lu mel ni tey dinaa recevoir ki ñuy wax Moctar Ba mi nga xamante ne responsable bi nga xamante ne moom ak défenseur de littoral di def liggéey bu rafet ñu war a waxtaan ak ñoom ndax ñun ñëpp projet bu am solo bu ko venir ñu jébal ko président de la république mu jël ci décision yi mu ci war a jël linga li tamit euh, li nga xam ne dépollution baie de nakte ndaxte bu ñu waxee euh, littoral yamul rek ci tabax yi ñu ci tabax bokk na ci tamit li nga xamante moy pollution bi gis ngeen canal bi joge Gueule Tapée gis ngeen baie de ni mu mais président de la République Macky Sall mo outil financement am défar projet ba tey ñu ngi waaj a dépolluer baie de Hann donc lool moy dëgg bi mais leneen lu way wax politique politicienne la ndax ndaxte ki nga xamante mom moy xey suba euh joxe autorisation bu ngone moy ñëw jooy ne dañu utiliser euh euh li nga xamante mom moy euh Euh, littoral bi donc loolu du wax yu am solo du wax yoo xamante ne wax dëgg yàlla mat na ñu koy déglu wala di ko di ko di ko jàpp jërëjëf